jàkkaarloog naan bu mag nag daanaan kulli fadil El Hadj Keita waaw El Hadj si loo ne. sant alhamdulilah maa ngi leen di béggee di kontaan ci yéen di kontaan si seen teewaay fii. waaw ñun tam kontaan nañ si yow El ñëw rek def noir et blanc black and white li Papa Mbaye Gueye Faye woote tey daa nga ñëw si bésu Papa Mbaye bi anniversaire am tey di la premier na mu boole ko moog bésu Papa Youssou Ndour ñu waa kontaan ku xam El Hadj Keita xam suma diggante ak suma Papa Mbaye Gueye Faye jàpp na sama carrière bu baax a baax sama premier clip euh, Mbaye Gueye Faye wayu ci participe mais mu ñëw ne day bokk ci clip bi kon loolu sax la deuxième bi ma def ko ak moom muy waa 55 bi kon ñaan man aw ma lu dul euh, di ko ñaanal yàlla guddal fanam defal ko jàmm defal ko mbooloo mu jullit. Uh-huh. waa dëgg la moom nee na tey Pape Mbaye Gueye Faye daal moo ko tax a jóg El Hadj ñëw def sañ see jëlal ma yow Mbaye El Hadj li mu def. El tam li nga def Mbaye ngi nii sa doom nee nga jàkkaarloo ko waa gël den tey mbaa xam nga ci biir a ngi yëngu. day yëngu day day fii fii day toj incha allah. kon ñu bàyyi la nga jàll ci biir. jeex na kon rendez-vous ci kanam. waa nee la Pape yow ñoo ngi nii. ma xarit taseeg tonton Pape Diouf. waaw tonton nuyu naa la. maa ngi lay fay. maa yaa ngi ci jàmm. sant bu baax. borom la Thérèse yaa ngi waaj. waaw maa ngi waaj bu baax. waa single bi la jili defal tamit. jili kay moom dafa lakk dëkk bi. di sama rak. waaye nag man ak magam la muy Balla Seck di sama rakk ma yar leen ci ginnaaw raay jili defal ma surprise bu rëy def single bu neex génne ko aw ma fayam. dëgg la jaajëf merci beaucoup tonton Pape. si loolu. voilà te wax dëgg yàlla lim def ci aar bi kenn dootu ko laam-laame waaw kon donc bu xewlee ñun ñun ñëpp moo ñu dalal baax dañuy bàyyi lépp ñëw. dëgg la kon léeg-léeg lay doon ci biir. waaw fii kay dina wàcc. jaajëf nee tey fii day wàcc waaw loolu dafa leer tey fii dafa. nee ba tey ñoo suñu soirée bi taxaw suñu tonton Idrissa Diop kenn dootu ko présenté àdduna ñëpp a ko xam tonton Idrissa maa lay nuyu. damaa leen di fay. waaw ki la woo tey la moo war tey si teewaay si bés bi tey ñu ngi lay nuyu. maa leen di fay bu baax et puis kontaan tey teew fii kontaan tey vraiment célébrer ñaari anniversaire mooy suma ñaari frère muy Youssou Ndour ak euh, ak Mbaye Dieye Faye vraiment di leen souhaiter un excellent anniversaire man du may génn sax mais bon c'est rare ah, ñu may gis mais tey moom dama décidé ne tey il faut ma ñëw pour passer. la soirée avec mes deux frères Youssou Ndour ak ak euh, Mbaye Dieye voilà. waaw dëgg la dafa mënta ñàkk te mënta ñàkk faa mu am moo tax tey tonton Idrissa taxaw ni ñëw ci bés tonton Mbaye bi waaye yaa ngi sañse nag. non sañse boobu dama dama formé naa vers sama sama sama kër rek ñëw sol et puis voilà. voilà waaw merci beaucoup ñu ngi maa ngi leen di gërëm bu baax maa ngi leen di sant. merci beaucoup bonne soirée bonne soirée à vous. merci naa la ba tey ci bés bi tey dañoo gis benn xale bu yàgg pare pire xale bi sañse na daal ñu ne chéri nuyu naa la. fay naa la chéri. waaw dégg naa cousine Fallou nga daal. waaw waaw. waaw moo waral tey nga def nii daal tey ñëw ci bés bi. <laughs> waa gis nga tey nii lañ def parce que sama papa moo aye muy papa bu baax papa bu bëgg njaboot ku oyof wàccee ñëpp moo tax ñu def nii tey wuy si ko. waa dëgg la mbaatam xeeboo li nga def. non ma ko. nii daal nga def wuy si tonton bay daal ci bësam bi fii ci Golden. waa gis nga madame Sène moom nii lay def. saa xam nga ne ci biir a ngi wàcc. waaw ba zéro kon. kon rendez-vous ci kanam. waaw incha allah merci ma belle. <laughs> ci loo nekk chéri. baa yaa ngi ci jàmm. ngi ci waa tey tam lu waraloon teewaay bi tey ci bés bi. waa dëgg ne ko parce que nag eh, ñi ayee dañoo foor ci man xam nga ñi ayee ñoo ma yóbbu Bercy ah ñi ayee eh, ñoom may feccloo ñi aye ñoo may yóbbu fu nekk foo xalaat rek ñi aye ñoo ma fa yóbbu dëgg du neex. dëgg la mbay nag neen danga koo bàyyi nga ñëw rek wis tonton mbay kay day def sa blank waaye bu baax noir et blanc mbay jëlal ma ko ni mu def xoolal li tamit ak bajant bi waa maam waa lépp a baax waa lépp baax looy wax tonton mbay. waa tonton Mbaye dama koy ñaana ñaanal ah, sama papa xol boobu moom nee naa bàq ba day jib ci moom mooy borom géej gi borom suuf si ah ak borom euh, borom asamaan ki parce que nee naa loolu yëpp ni mu toll moom xolam noonu la toll ba tax na bu ko yàlla fayee dëkk bi yëpp dafa yëngu statut yu yëngu lépp yëngu koo wax ñu ne la papa Mbaye papa Youssou Ndour papa Mbaye papa Youssou Ndour moo tax tey ku bonoon ci aar bu la yeboo boo xoolee ñooñu rek mën nañu doon sa référence parce que nag euh, dëgg neexul baax am solo na bi dafa jeex ba pare da ngay jékki-jékki gis ku wax ñu naan déeta waaye ñu ne la démb fii la doon waxee yàlla dogal na la muy dogal ba tax na lépp rek na rafet ci aar la ñu nekk lépp dafa war a rafet ba keroog ñuy ñibbi lii laa wax. waaw maam Dumbe kàddu itam rafet na ñu ngi lay gërëm di la wax rendez ci kanam. waaw noo fi mu ne nii ci biir ci kàttanu yàlla dina wàcc ba zéro ma yéegalaat ko ba cent lii laa wax. ak leneen jërëjëf merci beaucoup waa ba tey nee naa la mbay ñoo ngi nii ci buntu Gueule Tapée seen fi koo xamante ne nag sama xarit la sama ki ma bëgg ki ma yàgg tonton bi da ma ngi lay nuyu. maa ngi lay ziar soxna su baax si rafet si. waa ci loo nekk tamit nag. mais namm leen rek. waa tey ñoo ngi nii ci buntu Gueule Tapée ñëwal fi kan tonton ci bésam bu baax bi tey di anniversaire am tey ñëpp jaay seen lal ñëw fas yéene teewal tonton Mbaye Gueye Faye tey la wax ci bés bi. ah mu lu rëy rek mu lu rafet loo xam ni mu ngi koy rafetlu ndax Mbaye Gueye Faye ak Youssou Ndour ay école lañ ci Sénégal su may woon sax ñoom ñooy Sénégal ndax yóbbu nañ turu Sénégal foo xam ni ah néew nañu ko fa yóbbu ndax man maa ngi ànd ak ñoom tout le temps waaw ku li Mbaye Diop tey ni Biram eh, ni Youssou Ndour di nga dégg Biram Dieng donc ñu ngi kontaan nag yéen ñii si seen teewaay ndax li ngeen def nii ñëw jëm jëmmal ci soirée bi mën nañu leen a fay yàlla rek la mën a fay kontaan nañ ci yéen waaw kontaan nañ ci yéen bu baax a baax a baax a baax waa kàddu yi rafet na tonton Birame ba tey ñoo ngi gërëm tamit di la sant di la wax ne bonne soirée kon rendez-vous ci kanam ci biir rendez-vous ci kanam ci biir léegi ñu ñëw jàkkaarloog waa TMP waaw dégg li waa TMP tam ñu ngi souhaité joyeux anniversaire tonton Mbaye bi de dégg te ngeen ñëw ci biir ñu defal na ko ci biir baax daal waaw caat binta lu caat yow binta du yaay caat caatu yem kaay yow Binta yaay caat. moo may déggal tamit neex ëpp neex fi wàcc na tamit. yaa tut tut nee naa na mbay ñoo ngi nii taxaw ki nga xamante ne kii du kenn dootu ko présenté ci àdduna def na fi lu ne def na fi lu ne kii mooy borom RTS tonton presse tonton maa ngi lay nuyu. tam dama la ñëw fekk tey ci Golden tey ci bésu mbay bi tey noo koy waajalee tey. mais simplement parce que xam nga mbay ak man dañu am relation bu dëgër relation boo xamee ni dafa yàgg et relation bu sincère. léegi rek benn journaliste mi ngi may laaj ñëw chaque jour sa relation ak mbay day gën a euh, dëgër dama ko wax ni ko amul tricherie donc euh, lu ñuy sentir la man ak moom et puis ça fait plus de vingt ans ñu ngi ànd mosuñu am benn jafe-jafe donc euh, bu ñu nekkee le premier octobre dañuy xam ni suñu bés la dañuy xam ni bésu Sénégal la mais dañu xam ni bésu artiste sénégalais yi la mais dañu xam ni bésu africain la parce que anniversaire la boo xam ni daf koy sedd seddoo comme li anglais dox wax daf koy sharing ak doomu ndeyam mu Youssou Ndour donc li ñuy waajal mooy accueillir suñuy gan dalal leen ñu dal ñu accueillir les télévisions dalal leen ñu dal ñu accueillir les sites dalal leen ñu dal accueillir les journalistes dalal leen ñu dal les caméramans ñu mel ni yéen ñu accueillir leen ba pare jox leen un beau spectacle xam nga par exemple ITV yi ñuy def c'est très beau mhm. parce que le public bi les followers les internautes ils ont ils ont envie de comprendre mais ils ont envie également d'écouter donc euh, léegi ci kanam di nga gis ni Mbaye dina ñëw ak beneen version ñëw tamit ak beneen style mais ñëw également ak répertoire bu bees boo xamee ni yéen la koy jox en exclusivité les sites yi nga xam ne ñoo fi nekk donc c'est pour vous donner rendez-vous tout à l'heure dans moins d'une heure de temps vous allez voir un grand spectacle avec Mbaye Dièye Faye merci beaucoup tonton Prince di la wax ne bonne soirée merci

Gracias. Lostoy Souleymane kii nag madame Faye moom sunu jumelle la ñoo bokk bés madame Chane Faye kii taxaw Oumy Badara génn sax génn ñëw ci mais bésu ngénteem premier octobre. li jàpp seen kii yow. dëgg la. li ma waxoon 2STV laay waxaat. nee naa man Lamine

xam naa ni nag après journaux yëpp dinañ ko jël suba El Hadj Diouf defal na lii mbay mi tey jàppal bàyyi. dama ni grand bàyyi. amul lu la defalul ci àdduna. te amaa ma ko doon defal. defal naa ko suma maam bi ma yar. defal ko suma yaay. defal ko sumay mbokk. moo tax ma ne ko grand. oui Babacar. loolu du kenn du wax man maa ko wax man. Baye Fallou. El Hadj Ousseynou Diouf. oui onze. numéro un. indilu ma la gâteau. waaw. indilu ma la cadeau. waaw. mais cadeau bi dama koy garder ba déwén. Ah. man maa la ko ñaan. te man sax. demaguma aji Makka maa la dëkk bi aller retour Makka ba pare ak hôtel. xam naa dem nga fu nekk mais grand.